déglu nga discours bi. sëñ Cheikh gaañu na sëñ Moustapha la. astafurlah astafurlah sëñ déglu nga waxtaanam bi. am na lu ma ci déglu. léegi sëñ bi man balaa balaa moom li mu wax gàmm buñ nee gàmm lan moom mooy gàmm ci dañoo war a dañoo war a soi kilifa gi waxtaan dafa war a choisir thème ne ci thème bii la ñuy waxtaan dafa war a tàmbali ci yonent bi yem ci yonent bi dafa war a tàmbali ci arxuraan yem ci arxuraan lan moom mooy concept gàmm. fàttaliku yonentu sallallahu alayhi wa sallam. bëggloo ko nit ñi dajal lekkandoor ak naanandoor fàttaliku yàlla ak tudd yàlla képp mooy gàmm. amul leneen. amul leneen. lii mooy gàmm. mais bu fekkente ne tey dañoo constaté dañoo seetlu ci guddi gàmm kilifa yi toog war a waxtaan ci biir waxtaan wi ñu ciy sentir lu mel ni ay ay ay ay sànni track ay tontu yu ni mel est loolu lu ñu war xaar ci guddi gàmm la. ñii déglu la ñuy laajte seen xel yi ndax mat na pour comprendre lan la moo war kilifa diini mais Serigne Moustapha si ay ndaw a ko topp ci àdduna bi la nekk Sénégal lay dund bu waxul ci actualité Sénégal lan la war a wax hmm. te gis nga mbir mu nekk faw ñu koy àtte outside the box maanaam li xew hmm. da ngay génn li xew nga mën a xam la moo xew. lan moo xew ay jamono ci ginnaaw kilifa diine bu mënoon a ànd ak sonko te dëggal ànd gi wane ne moom laa àndal bari wudde mhm. amut benn xalifa général bu fi ànd ak sonko te mu fës mhm. kenn leen fi déggoon doomi alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh mu ne man awma sago ci sonko mhm. sëriñ Moustapha Sy moo ànd ak njabootam ànd ak sonko ba muy métti bàyyi ma Macky sàll ak nguur gi kon su yàlla defee ba nguur am sonkook jomaay mën a dem Medina Baye mën a dem Tiwaawoon mën a dem Touba ñooñu kilifa diinga dong leen war na mën a seeti sëñ Moustapha Sy ndax ba muy métti bëggoon na ko wan ko ne bëgg naa la jegeel ko boppam gis nga nit su la bëggee danga koy delloo njukkal man duma mustas mhm. mais dafa am lu fi xew ñu teg ci suñ bët ñun ñëpp dégg neen fii gëmmal dóor président woote kilifa dina taxaw na ko gëmmal dóor nit taxawaat fii na ko président dafa war a rey pendant temps boobu yépp Moustapha Sy ak Moustapha Sy ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko mu di ko accolade di ko fóon wane ko parce que sëñ dafa toll foo xam ne ci wërsëg toll foo xam ne ci xam-xam toll foo xam ne ci wilaaya faalewul ku yàlla bind fekk nekkoo ci yàlla mi la bind lim la sant moom Moustapha Fallewul yoonam nekkut ci yow waaye bu àndeek Sonko foofu nag ba nguur ñëw man suma xalaat maa ko moom. Mhm. d'accorduma ci Ousmane Sonko ak Jomaay seeti ñëpp jéggi ko rafetul. Mhm. ndax bi muy métti moo moo moo fasaloon boppam dëggal boppam ànd ak ñoom di joxe ay discours yoo xam ne métti woon na ñu jàpp ñaari dépité ñaari député mustas leen jàpp te yeewi askan wi la ñu bokkoon. tëj leen kaso six mois fekk neen ma ci kaso gi man mii di wax. xam nga député bi ñëwee lan leen njëkk a fan la sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh nekkoon fa leen bëgg a tëdd ñun. ñu ne leen den ko néeg boobu amatul maa ko fekkee dama ko dégg ñi mu koy laajte mu ne néeg bañ tëjoon sëñ Moustapha ak sëñ moom fa la bëgg a tëdd. ñu ne ko néeg boobu nekkatul fi den ko defaraat ma ma wax ne loolu xeeblu sëñ Moustapha la waaye yabaate la xam nga yabaate du lu garaaw yabaate acte la mais beneen bi ci des mooy ko ci boppam taalibe yi ñoo am lu leen naqare ci seeni sëriñ sëriñ si ànd ak Amadou Ba ak Macky Sall taaliba yi sanctionné sëriñ yi ne sonk yow mi ñu àndalut yow leen faral. Hmm. Sonko demut Laayeen moo gañ a Laayeen. Hmm. demut Canaba moo gañe a Canaba. demut Medina Baye Niass moo gañ a Medina Baye Niass. demut Tiwaawoon moo gañ a Tiwaawoon demut moo gañ a Touba Ba dem fépp gañewut fa dara. léegi nag taaliba yi la leen naqari woon bañ romb seen sëriñ siñ gëm seen xol bi. suñ taxawee ñu julli seen bu ñu dee ñoo leen di rob yow boo demee jubóog ñoom te li naqari woon taalibe réglé boo ko yaa ngi ñàkk base politique boo xam ne yow Sonko sax mesuré wul ko xamoo conséquence bi hmm. ndax bu sëriñ si doon yokkal nit dara ci politique wala doon maye nguur yow doo ko am amul ba moo koy am su fekkoon yàlla nguuram sëriñ si la ko jox Amadou Ba la ñuy jël mbubbi nguur Amadou leen koy solal yow ñu yóbbu la kaso wala ñu delloo ji la Casamance waaye nag sëriñ yi kenn moomu ci nguur ñoom moom seen ngërmande ñoom moom seen kàddu ñoom moom seen choix seen ngërmande Amadou Ba leen ko jox seen kàddu Amadou Ba leen ko waxal waaye yàlla mi moom nguur moo ko jël jox ko jomaay nam ko neexee ñëpp la bett ñépp la bett mhm. léegi yow yaa ngi demaat di jubóog sëriñ soosu fu ne nga dem fii nga foon loxo fii nga sukk fii nga toog fii nga joxe say discours taalibe dafa amoon lu leen naqari seen kër sëriñ mhm. mooy seen maam day doon taalibe seen baay doon taalibe ñoom ñu doon taalibe doomi sëriñ bi du la gën a sonn ci njàng bu xam-xam jotee moo koy am bu diplomate jotee moom leen koy jox muy tukki di ñëw lii moo naqari taalibe gisatuñ seen bopp seen kër sëriñ li moo naxari taalibe yi gisatuñu seen bopp seen kër sëriñ dañuy dem nii di maslaa rek wala su fekkee kër Baay Ñas bëgg neen bàyyi mbëggeel goo xam ne amuñ fuñ jëm bu dee murid leen bëgg neen sëñ Tuubaa mbëggeel goo xam ne amuñ fuñ jëm bu dee tiijaan leen bëgg neen sëñ Babacar Si mbëggeel goo xam ne amuñ fuñ jëm waaye ku leen doy ci njaboot gi moo manqué ku leen doy ci ñub ci xam-xam ci màndu ci ragal yàlla waaye ci suur àddina bàyyi leen àddina ku leen di jàppale ba seen mbiri àdduna dox lii la taalibe yi manqué manqué gi ñu ko manqué nag moo tax Sonko bi mu ñëwee indi patriotisme ñu ne ah fii moo baax ñun dañuy dem ànd ak Sonko ñu dem ànd ak moom Sonko falu ànd ak sëriñ si te ñoom dañoo bëggoon koo xam ne du topp sëriñ si waaye du contre sëriñ si day tal Sénégal pour sénégalais defar économie bi indi sécurité bi yemale ñu ñun ñëpp amul mbàkkeeg séeg ñas ñëppay yem ci Sénégal ku ne la nga ëppale sa morom ci xàq nga jël ko lii la lii la ndaw ñi yaakaaroon ci sonk mm-hmm. waaye xoolal diggante gàmmo ak màggal ñaata million moo génnee ci keesu état bi jëm ci màggal jëm ci gàmmo yi mm-hmm. ñaata moyen état li bokkoon na ci liñ doon dénoncé mbës hmm. Sénégal du murit du tijaan du jullit du chrétien Sénégal Sénégal la hmm. ku gëm màggal dundalal ko sa bopp ku gëm gàmmo dundalal ko sa bopp état bi warta dundal gàmmo yi ak hmm. ziyaara yeeg màggal gi waru ko parce xaaruñ loolu ci moom waaye sëñ tubaab mu ngi cër boo xam ne ci yàlla ñu ko bëgg bu màggal gi doon mille milliards dañ koy def te duñ ko yëg kon xaaruñ état soxlawuñu état waru ko faa dugal. la ngay dépassé ci màggal yeeg gàmmooy boo ko paree ba mu jeex ay milliards la. benn réew warta dajale milliards yooyu def ko ci màggale ki gàmmo te priorité taxaw. loolu ndollal la. Mm-hmm. lay réalité ak vérité fekk nekkuñ ci rek waruñoo def loolu man jënd naa nag ci gàmmu gi yow peut-être jënd nga ganaar wala béy loolu nga am mm-hmm. mais ñun ñun ñi nga xam ne ñoo gëm gàmmu ñun mm-hmm. moomuñ Sénégal ah. am na ñu gëmut gàmmu ñu ngi fay tax waa seen xaalis bi ñuy jël di ko yóbbu ci gàmmu ak màggal ndax neex na leen kii wax nag xam na gàmm man xam naa gàmm bëgg naa gàmm gëm naa gàmm mais faw ñu doon nandite pour mën a séparer état bi ak nit ñi ko dëkkee ak li war état bi man dama contre màggal jot ñu dajaloo dem ci sëriñ bi naan waa liggéey bi nangam nangam fii la toll ñu naan waa sëñ bi lim santaane woon def neen ko sëñ bi gërëm bu déwee ne sëñ bi sàkkuwaat sëñ bi gërëmaat non naxante la pour man li war état bi du màggal mooy xam na ne doomu sénégalais fii palaas bu ñu fonk la bi ñuy nekk ci football dañu dem tabax stade bu cinquante mille personnes pour ñu mën a tàcc yuuxu mais sénégalais yaa fay dem pourtant du diine de mais dafa soxal sénégalais noonu leen war a xamee ne fii ñu jëm muy Touba dafa soxal sénégalais naa fa teppi yoon naa recensé marché bi ñu mën di exposer ay bagages. dineen soxla courant naa fi def post courant dineen soxla ndox naa fexe ba sénégalais su ñëwee du mar mais pas situation màggal gi rek bu maggal jeexee Touba ëpp na ci palaas yi ëpp nit ci Sénégal mais doomu aadama du màggal rek la war a dund sénégalais leen nguur du dara lu mooy réew doomi réew mi ak seen alal mais nga def assainissement Touba bu baax ba ëllëg su màggal jotee yoonu nguur gi nekku ci fii ku fi dem si sa sëriñ xam nga la war sëriñ bu taali bi di ñëw ci yow xam nga li la war lu ci yooni nguur lenn rek la nguur gi di def teg ay ambulance pour ku xam ñu dugal la ci yóbbu hôpital teg ay policier ku xeex ñu àtte mënate yóbbu tëj sécurité ak assurance leen soxla ci nguur gi par 500 mètres ñu teg fa ay policiers yu taxaw gendarme kenn du daw lu bari mais sàggante nguur gi moo tax accident yi bari mun nañu ne saa yu ñu màggal bilan plus de dix morts fukki bakkan yooyu dee réew mi soxla na leen. mënuñoo mhm. def par cinq cent ku daw lu ëpp ñu gaara la taxaw ku yëpp nit ci kaw ñu ne leen oto ci kaw du pour nit. Mhm. mais jour màggal code de la route dañ koy sànni jouru gàmmo code de la route koy sànni jouru làmb code de la route koy sànni suñ paree ne dañu bëgg Sénégal bu bees ay patriote leen c'est faux munul nekk munoo dem ci dëkk bu mel ni Touba te civilisé wulu hmm, yi xeetu dëkk. munoo dem ci dëkk bu mel ni Medina Baye te civilisé wuloo yow da ngay dem te yàlla tax bëggee yonent bi mais amal comportement yonent bi toogal nice laal sa parfum chauffeur bi xam ne ay jullitu sell la yëpp mu daw ndànk dal ndànk mais déedéet yaa ngi xalaat cinquante mille yi ngay am ak boo demee wàccee li ngay jëlaat respecté woo nit ñi yow it respecté woo sa bakkan bu fu ne nga lang te sax ma wax la fa benn sew-sew li la màggal wala gàmmo jaral ba nga yéeg ci kaw oto jóg jàpp julli rek jaralu la ko dëgg la mais ban yàlla ngay jaamu hmm. ban diine nga nekk. yaa ñeme dëgg. donc pour expliquer la que Ousmane sonk ak Jomaay ak seen nguur gi. Mhm. man leen di ñaanal yàlla buñ fàtte mukk lu leen fal. Mhm. li leen faloon mooy nit ñu mer la leen naqari feeg fajuwut ñoom waru ñëw jubóog ennemi bi ñii xam nga ñan leen jàpp ennemi nguur gi fi nekkoon den jàpp ne ñoo lekk alali nguur gi yëpp mooy seen ennemi fii ko transhumé ñu mere Sonko ñaareel ba sëriñ dañu jàpp ne sëriñ si ko yàq ak géwél yeeg coog muy dox bi ñoom loolu lañu ñu gëm c'est vrai ou c'est pas vrai c'est autre chose mais ñoom loolu leen gëm léegi nag gëm gi ñu ko gëm nii moo tax ñu jël seen carte jox ko Sonko mhm. Sonko campagne ci seen gëm-gëm mu dox demu Touba bañ naan kër gi la dugg demu fa demul parce que Sénégal du Touba. demut Medina Baye parce que Medina du Touba. demut Ndiassane parce que Ndiassane du Touba. dafa dem ci dëkk yi mën a dem rek wax ak nit ñi gars yi wax ñu dem woote cinquante quatre pour cent ci électeurs ñoo ne Sonko yow ki nga fal moo ñu doy. ñun yéen leen wóolu doxal leen ba deux mille vingt neuf ngeen ñëwaat ñu seet kan la ñuy joxaat. macha allah. kon pour expliquer le que. donc mu ngi fàtte li ko fal. gis naa ko mu dem si kër sëriñ yëpp jomaay dem fu nekk ñu def discours comme ni Macky Sall daan defee discours. taalibe yi tàcc yuuxu mu neex su demee Tiwaawoon waa Tiwaawoon yi estati su demee murit yi estati ak a sell ak bi taw bi di ñëw ak daf ne nii daf ne na yii leen doon defal Macky Sall ba bu ñu doon wax Ousmane Sonko dàmpalu lu ñu doon wax faluñ imaam. dëgg la njiitu réew la fal. dëgg la njiitu hmm. mais njiitu réew dañ koy xaar ci urgence su réew mi ak jafe-jafe réew mi mais du jubóog sëriñ si ak foon seen loxo yi. taalibe yaa dàq foon loxo sëriñ si. du problème sëriñ si am nañ ko foon seen loxo yi ba mu xotteeku. discours am nañu ko mën a defal sëriñ si arab yu neex soxluñ loolu. mais neen tegu ci seen priorité bi leen fi indi woon xam nga man soo gisee su ma toogee tuuti xam nga su ma noppee woon léegi jeex na waaye damay dëggal toujours ne man opposant la parce que gis nga mbës hmm. fekk bàyyiwuñ ànd ak nit ba mu daanu nga dem ànd ak keneen duñ mun a xam lan mooy dëgg ak lu dëgg hmm. mais ñoom neen xam ne neen xam ne ñi leen fal dafa am lu ñuy xaar ci ñoom ñun ñi leen falul ñu ngi xaar ñu échoué dëgg la te bu fekkoon ne sëriñ sii rek rek rek rek rek la wala ñoom duñ fal. dëgg la. campagne ñu leen joxuñ leen xaalis ñaanaluñ leen ànd ñoom ñoom óoluwuñ leen sax par. Mhm. maanaam sëriñ si dañoo wóoluwuñ ñi tey kon yow comprendre nga daal taxawaayu sëñ Moustapha. mu gis boppam. sëñ Moustapha moo nekk ci dëgg. Sonko kiiwu ko. moo nekk ci dëgg te xam nga li gën a bon. Hmm. soppe bu dof. lum ne daf la koy defaral. bu ko yàqul du la ko defar. sëñ Moustapha dafa am moom dafa am kilifteef du kilifa rek am na kilifa yu amul moom dafa am kàddu ci mbooloom su taxawee wax ci Sonko yow nga bëgg Sonko perte sëñ Moustapha affaire la. wax ci lu rafet mais ñu ngi koy tafaka saaga ak def lu ne. Mhm. parce que dafa wax ardeem ci digganteem ak sonk ñu koy tontu ñooñu xeexaluñ Sonko bëgguñ Sonko duñ patriote seen bopp leen fi nekkal. mais man suma kilifa Sonko la sëñ Moustapha kilifa génn la ñoo daan ànd. tante nekk benn problème am na sëñ Moustapha wax na duma ko attaqué ndax moom it dafa am njaboot njaboot gi dañuy jóg day yaa ngi ubbi front yu bari ci guerre. arrangé wul ku nekk ci nguur benn coup d'appel mun na ko régler benn visite mun na ko régler luy problème bi na Sonko yëkkati téléphone woo papaam sëñ Moustapha bàyyi la ci moom sëriñ la ci moom kilifa la ci moom ndax buy téeméeri sénégalais am na ñu bëgg sëñ Moustapha. Mhm. sëñ Moustapha dafa bëgg Sonko Sonko bëgg sëñ Moustapha Sonko bañu kenn kilifa yu musul leen a saaga Moustapha wax ci ñoom lu ñaaw benn coup d'appel réglé na ko. mais mboccoro cocco cocco yi ci nekk di wax neen tëj seen gémmiñ yi xam ne ñaari paaka gën a ñaw rek te ku ci dugg yaa ciy dagg kii kilifa la ci àdduna mooy premier ministre du Sénégal du poste bu ndaw kii kilifa la ci diine la ko fal du ko folli ba àdduna tukki te réeroo amut fa soppe bu gëj a gis soppe gis ko mu seeti ñeneen mu ne man suma soppe bu ma sañoon mu ñëw ci man lu fi ñaaw sëñ Moustapha bu bëggutoon sonk sëñ Moustapha da nga mos a dégg mu ne dama ma gis seet. talu ko mais dafa bëgg sonk ci xolam doomam la taalibeem la. Mm-hmm. te moom dafa dëggaloon boppam ci Sonko ndënd bu benn yoon Sonko seeti nawleem yi dem Tiwaawoon gam bokk dem Medina dem Touba gisul ko mu jàmbat ko mais lii dafa nice mm-hmm. na Sonko dem woon ko na ko papa maa ngi nii fa ma dem yow laa fa teewal wax ju rafet lu mu lu mu defaru du ko yàq léegi ñi mel ni mbës amuñu palta amuñu place amuñu xam-xam jànguñu duñu dara ci réew mi bëgg a taal seeni caméra wala ñuy samp seeni live di wax ci kilifa gu toll ni sëñ Moustapha di wax bay jéggi ay kàddu ñàkk a xam rek. loolu suñu ci suñu réew ñu yar ñu ci warmaal mag ñu yar ñu ci am teggin ci am yar tey ñuy doxale boobu doxalin. man de lu rafet laa ci gis man bi ma ko seetaanee. dama ne mahboobi mahboobi mahboobun soppe ci soppe la rek man ni ma ko analyser man. dafa bëgg Ousmane Sonko. àndoon ak moom ba muy nit dëggal boppam bi sëriñ ci dawee yàlla mooy joxe nguur sëñ Moustapha falu ko de yàlla moo jël nguur gi jox ko Jomaay ak Sonko. Sonko dem na feneen communication amut fa sëñ Moustapha namm ko ne gisuma ko. mais Sonko na yëkkat téléphone papa maa ngi ni mu jeex. Mhm. na ne sëñ Moustapha fa ma dem yow laa fa teewal parce que mbëggeel gi ma la bëgg moo tax ci yow laay mujj. Mhm. Imaam Cheikh dafa ñëw Gàmbi di conférence. mu ne ngir màndali dama koy xaaj ñaar dafa am ñu may njëkk a tudd am ñu may mujj a tudd mais ñi may mujj a tudd laa gën a gërëm ñëpp bëgguma mujj leen a tudd fekk dafay bañ liste bi jeex. te fekk ñam war a gërëm des na kon mujj ci sëñ Moustapha mën na neex xam nga ne sëñ Moustapha nii nii nii rek bu ko defee taalibe yëpp dajee te doo dégg benn annonce Sonko na ko maa ngi ñëw samedi dama bëgg ñu daje mu woo ko nga gis Moustapha génn ci àddina fu ñu mën a dem teew ñu waxtaan luy développer senegal bi sëñ Moustapha di développer senegal Sonko ngi jàng Sonko jàng na ba ñëw ci politique ba changé poli taarixu politique gu Sénégal sëñ Moustapha ànd ak moom mais ñaar ñooñu seen ànd moo gën tàqali ko ndax Sénégal kenn mënu koo defar dañ koy bokk defar. te sëñ Moustapha mën na jàppale sonk ci liggéeyam waaye Sonko mën na jàppale sëñ Moustapha ci liggéeyam kon ñu ànd mooy intérêt Sénégal. Mhm. man du ma saaga Sonko ngir sëñ Moustapha du ma saaga sëñ Moustapha ngir Sonko parce waruma lu suma yoon. defar ci moom a war kilifa ak aada ak kilifa ak diina ànd rek buñ àndul day métti de day métti de te boo xeebee sëñ Moustapha ne fa Sonko faalewu ko yaa ngi ci erreur boo xeebee Sonko ne sëñ ko yaa ngi ci ñoom ñaar ñëpp fa yàlla falee sañ Moustapha jox ko wilaayatu fa la falee Ousmane Sonko bigam bi mën na lu kurus mënul da dem si sëriñ mu bindal la jox la càngat. jox la saafara jox la sarax Ousmane Sonko mën na bind tay tay tay tay tay bind rek nga am milliard kon yàlla fi mu falee kurusam bi si kurusi sëriñ si la falee bigi Sonko bi foog ñu xam yàlla pour mën a respecter nit ñi man ànduma ak Sonko politiquement doyut ma politiquement mais su ma ko gisoon dama ko sumil suma mbaxana ndax kilifa la hmm. yàlla moo ko fal fam falee sëriñ bi may sukk di raam fa la falee Sonko imagine nga deux mille euh, euh, ñaari at ci ginnaaw sëriñ Muntaxa Xalifa toog jomaay toog ci kaw su muyun mbaxana muri di peseñ ko imagine nga loolu hmm. mais tey fu sëñ Muntaxa toog lay toog ndax fañ falee sëñ Muntaxa leen falee jomaay ma wax lu doy waar te dëgg la te duma faale ku ko déggul ba analyser ko leneen su ma yoon nekkul ci ndax man duma maslaa ci dëgg fañ falee jomaay moo gën a dëgër fañ falee xalif général ci réew mi lan moo tax ma wax loolu. lu tax. Mhm. xalif général yi ku ne sa kilifa kër nga bu tiwaawoon waa tiwaawoon rek lay contrôler contrôler wul Medina Baye amu fa ndogal. Mhm. bu muriti rek lay contrôler ak muriti amul dogal tiwaawoon waaye jomaay mooy seen kilifa ñoom ñëpp comme ci ne bul génn doo génn. Mhm. mooy dogal àtte buy yokkal seen dund ak buy wàññi seen dund comme neex na nga doon fanatisme waaw suma sëriñ bi noo kii sëriñ bi lay tuutil falak jomaay mu ëpp doole falak sëriñ si ndax sëriñ si ku ne pàcc nga yor jomaay yor yépp moom Sénégal ci boppam la yor moom mhm. président kullu sénégalais ñoom ñëpp mooy seen président ñi baax ak ñi bon ñëpp mooy seen président. murit ko du sa njiit dama bëgg mu leer de ku ci nekkul li sëñ Touba digle sëñ mu daxaa du sa njiit de yaa ko def njiit mais moom du sa njiit. dëgg la moom den koo sàmmloo. ñan leen ko sàmmloo ñi sellal te jëm ci yoonu Serigne Bamba képp amul droit dugal ko ci bokkul même moo appliqué ci mbay Mbaye Sy Mansour moo appliqué ci Cheikh Mahi Al waaye jomaay ki bon sax ci moom la bokk. Mhm. xanaa moo gën a yaatule. bu koy neex moo koy naqari. ki ko voté la ki ko voté lool. juddool Sénégal amal ko kayit bi rek. kon neen rek la te xam yàlla. xam ni mbir yi tëddee ñu mën a noppale ku mën a jaamu ji yàlla. moo tax fu sëriñ si toog. jomaay toog fa te balaa sëriñ si di toog protocole jomaay bi ñooy décider fi sëñ bi di toog. ak na muy toogee ban waxtu lay ñëw dañ koy xam. président du caaxaan premier ministre du caaxaan kon diggante sëñ Moustapha ak Sonko man gisuma ci benn problème man ma gis soppe bu nam mu soppeem rek ak góor goo xam ne ci li mu bokk gis na ko ci nawle mu gisul ko et sa normal mais sëñ Moustapha foofu la am fa la waxee Youssou Ndour lu ko naqari day wéy ceeb bu sew moo ma gënal wax bu sew man lu ma naqari sama laaj bi laa koy waxee mais sëñ Moustapha gàmm gi la am dajeeg taalibe yi wax ak askan wi wax doléance am mais yar moo koy déglu. non gunóor yi Sénégal nag léegi jeunesse bi yàq ñàkk nañ yar amatuñu war ma. non mais bu ñu nekkoon di topp di ma déglu ma yar ñu doon naan ma lu ñëw rek nga analyser ko positivement te jàll. mais toog rek waa sëñ Moustapha yow yaa ngi fàttaliku nangam Sonko talu la ah ah Sonko mënta jiite réew mi te talut sëñ Moustapha. sëñ Moustapha mënta nekk ci réew mi te talul premier ministre koo xam ne tey bu taxawoon ne hey dix mille sénégalais wuyu ji ko tey yaay seen président su leen ne xotti leen seen carte d'identité ñu xotti ko bu leen wote du ñu wote sëñ Moustapha am na doole boobu kooku réew moom dinañ ko sàggane <laughs> yow tamit du demee noonu man duma taalibi sëñ Moustapha ma insiste ci loolu mhm. moom du suma sëriñ waaye kilifa la te yàllaa ko fal te dafa nàmp wilaayatu doon wilaayatu am xam jëriñ doomi sénégalais yi balaa Sonko di jàng ba Sonko jàng ba doon premier ministre mu bëgg ko dëggal boppam fu kenn dëggalewul boppam su demee bay seeti nawleem war na koo seete mais nit du nit nit day juum te mën na am sa Sonko dafa jàpp ci xelam ne sëñ Moustapha moom suma bàyyi la suma xarit la bàyyil ma seeti ñëpp maak moom leneen la mu koy waajal lu rëy parce que Sonko waxul ñu dara mais pourquoi ñu war a négatif daf ko xeeb Sonko mënta xeeb sëñ Moustapha faalewut ko lijjantiwut ko demeewut noonu mën na am ñëlee dafay maslaak ñoom waaye xam na fi ko sëñ Moustapha sëñ Moustapha taxawee mu dencal ko lu spécial pour seeti ko seeti bu rëy man positivement lii laa xalaata parce que awma droit xalaat leneen lu négatif macha allah mhm. macha allah